感谢你。 baax ñi fi woon tànn mbay royu waay du nu jub fi wees fi Au cas des moustaches. Elle tangue, elle s'affole. Ma bonne vieille pirogue. Victime profonde de récemment sans bug. Mon peuple, Embarqué dans un canot fou. jariñoo doy nga nu weeraay mëneef la ñaawal kenn dul yow anta ma muulu wa mag Thank you. ziaru baakha baax di ñaan yalla yalla na yalla motali sa yene ci mom yalla na yalla motali ay yenem ci yow te yalla na yalla teel ñu sunu pass pass inshallah tay nak dañuy def ben exposition ci sunu mom Serigne keur ci ñu jagalé beus bi ah fa tabarakallah mo war ci and ak sunu mbokk Serigne Moustapha sar Moustapha kon ñu bayila nga tambal inshallah ñu ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi diko tek ci loxo suñu capitaine bu ko rek. wolof mooy wax ni lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole li yëngu tey muy suñu maam Serigne Babacar si bësam radiyallahu taala anhu ku nekk yey na ci màggal bësam waaye rawatina daayiratul mustarshidin wal mustarshidat ndax lim leen defal ci nga wax ko ca Grand Théâtre ni mu tegee loxo sa góor gi tegewu ko kenn loxo moo tax kon tey bu ñuy def lii ku ñu ci fekk xam ni lu ñu war a def rek lañuy ñuy def su ko defee ci exposé bi ñu war a commencé ci Serigne Babacar Sy radiallahu anhu un produit de la sainteté lu tax bu ñu bu yàlla amoon vitrine bu muy denc ñi mu am te ñu sell boo demee diñ fa fekk góor gi muy suñu maam Serigne Babacar Sy sellte boobu nag dafa am ñu ci participer muy origine suñu jëlee origine suñu mam Serigne Babacar yàlla kumu tan tanal la origine bobu jàng nañ ko ci khilasuz zahab min khiratin karamin lil xiiratil karami hawa sharaf at tini haythu intisabuhu li fatimati zahra binti muhammadi mom itam sët la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu xoolee côté way juróom bu jigéen muy maam Fawad wala boog muy maam Roxaye Njaay ma nga tàmbalee ca Seydina Cheikh Chérif radiallahu anhu jaar ci Mouhamad El Kabir Mouhamad El Kabir moo jur Fatima Al Ansari Fatima Al Ansari moom lañ jox Eliman Faye mu dem ba egsi ci maam Fawad Wele moo jur suñu maam Seydil Hadj Malick Sy bu dee côté way juróom bu góor nga gis ne maam Demba Buna si ak maam Mati Mbacke ñoom ñaar lañu boole fa la famille Sy lié ak famille Mbacke fa lañ boole ñoom ñaar ñoo am maam Ousmane Sy ba mu egsi fi mu egsi kon suñu maam Serigne Babacar si mi ngi juddoo Ndar Saint-Louis moo nekk nële ci image bi rue André Le Bon juddoom coïncidé ak li ñuy tuddee taalifu Taysiir ñu fekk Maodo ci daqaar gi wax ko ne ko maam Rokhaya am na gan mu ne gan indi na gan moo tax mu daan wax ni tey siir sama cheikh la góor gi wax fii bu yàggul ne nañu fonkaat suñu Taysiir ndax suñu lépp a ngi ci biir juddu boobu mu juddu Saint-Louis suñu maam cheikh am na lu ci indi oustaz ayca waaw suma sëriñ Cheikh xasida boobu mu bind ci alima ala xayril jazirati innaha raat xutbal yawmi fi mahdi tifla di màggal góor gi gane mu àdduna foofu ca Ndar sëriñ Babacar Si mooy maam Roqayatu Njaay maam Roqayatu Njaay Maodo def na ci moom xasida ngir wane dayo bi mu toll yaa nuzhati quratal ayni ba xasida ba jeex moom nag sunu maam sëriñ Babacar Si am na fu mu jaar ci wàllu formation ñi ko jàngal Moustapha ci wàllu formation ndax ku nekk rek dinañ la former ku nekk dinañ la former formation ñu wax ni ñaari njabootu Seydil Hadji Malick si waajuram participer nañ ci kenn ki di Mame Mor Khoudia si Mame Mor Khoudia si jàngal na ko alxuraan keneen ki di Seydi El Hadj Malick Sarr di wayjur ci El Hadj Muniru Sarr jàngal na ko alxuraan waaye ñi ko jàngal ñëpp kenn du taxaw ni maa jàngal Serigne Babacar si kenn rek mooy taxaw ni maa ko jàngal muy wayjuram wasilaam Seydi El Hadj Malick Sy kooku nag ku mu formé nga war a mën a produire lu nit mën a jariñoo kon oustaz ci production intellectuelle production intellectuelle ndax sunu maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu li mu bind kenn xamul nu mu toll bind na ay qasida jagleel ko sayiduna muhammad sa alayhi wa sallam bind na ay qasaid jagleel ko cheikhuna Tijaani radiyallahu taala anhu te yi mu bind jagleel ko sayidna cheikh da ngay yëg ni lu nuy donnante la ba ci sunu góor gi ndax nax nu awlaadu Tijaani li mu wax ci yaa qut bu dëgg-dëgg boo ko xoolee fa tabarakallahu gis ko ci moom qasida bi euh, acrostiche boo xamante ni moo ko def lii ci loxoom la ko bindee mu jël xuruuf yi nga xamante ni lettres yi nga xamante ni ñoo tënk turu alxaaji Malik bun Usmaan mu bind ci xasida bind na xasida yu bare bare ak itam xasida yu muy boole wolof ak arab xasida yu muy boole arab ak français ak ay wolofalam kàddu wolofalam yu am solo yooyu le citation bi ci domaine politique bi la doon waxal ak ñi mu doon wax naan leen fu ngeen taxaw ma taxaw fa pour dimbali leen te yomb naa àndal ndax du ma leen ñaan paasu màkka du ma leen ñaan médaille duma leen ñaan dépense dama du leen ñaan dara ndax lépp Seydil Haaji Malick si radiallahu taala anhu defal na ma ko loolu sunu maam Serigne Babacar si moo ko daan wax ci yóbbalam yi juróom ya mu daan wax seen diine seen tariqa seen métier seen daayira seen yoonu Tiwaawan yooyu la ñu mbokk Seydina Ousmane Sow fa tabaarakallaahu defal ci euh, tablo daar bi juróom yi nga xamante ni jamono bu nekk daanaka ci la daan insisté yi nga xam ni suñu maam jaar na fa ñu njëkk ci tudd Saint-Louis muy fa mu juddoo waaye yaa ñu jàngal ci Colisée de l'éveil chaos ak clarté Saint-Louis kawo moo fa nekkoon ndax capitalu AOF la woon waaye moom du dund na fa ba jóge fa àndul ak benn tâche àndul ak benn tâche bi mu jógee Saint-Louis jaar na Louga ndax waajuram moo ko fa yóbbu Mam Rokhaya Ndiaye moo ko yóbbu Louga soxnaam bu njëkk itam muy soxna Umu Xayri Sàll mi ngi woon Louga ba jumaa jooju ngay gis noonu ci lañ denc suñu Mam Rokhaya Ndiaye te moo ko daan ñaan di ko wax doomam te ko bu ma sañoon ëllëg bu ma faatoo ñu denc ma foo xam ni damay dégg wasifa ñaan boobu yàlla nangu na ko bim fa jugee jaar na Rufisque Rufisque mawdo moko sakku won ndax daf ko proposer Dakar mawdo ne ko pareegu ma ci Dakar bu proposer ko Saint-Louis mawdo ne ko Saint-Louis dafa sori mu ko Rufisque mu ko baax kon demal Rufisque ñu wax ni Rufisque bobu à l'âge de 30 ans mi ngi fa woon fa la duggé xëlwaam bobu nga xamni ni ñu ngi koy ci 1111 jours di wax ni li ci. bidéew yi gis et boppam sax bariwul ndax pratiquement génnul bi ci des du leen jiite duma jiite nit ñi ci jàkka yi di leen jiite ci xël yi ci deuxième guerre mondiale tëngéej boobu la ko la ko la ko fekk ginnaaw tëngéej jaar na dellusi na tiwaawan dellu si na tiwaawan ndax tiwaawan mooy source bi ñu wax foofu lu am solo te mooy bi fi Maodo jóge si suñu maam Seydi Hadji Malick Sy Serigne Babacar bi dëj bi ruusee ni ko suñ sa turandoo jàngale ca gàmmu 2007 wax ni mag daf ne ko bu dëj bi ruusee rekk demal ndax say njaboot ñu ngi ñëw moo tax bi Maodo faatoo delluwaat na Saint-Louis def fa cinq ans ginnaaw gi la dellu ci Tivaouane installé définitivement bi ci des jaar na dakaar Dakar amoon na fa ñaari kër benn bi nekk medina benn bi nekk rue ci foofu la ñuy jàll ci dimension sociale suñu maam Serigne Babacar ci dimension sociale am li ci ëpp doole mën nañu wax ni mooy organiser bi mu organiser ay daayira te taw ba sociabilité bi war a am ci diggante nit ñi solidarité bi war a am ci diggante nit ñi mu liggéey ko ci daayira bi muy dem bàyyi na fi lu tolloog 216 daayira 216 ci titre et distinction yi am cravate du commandant de la Légion d'honneur du Bénin chevalier de l'étoile noire du Bénin grand croix de la Légion d'honneur y a ay distinction que nous ko jox la ñu wax ni suñu exemple de fidélité la exemple bi 1955 bi ñuy dem ci robu suñu maam un Rawane oto bi ñu duggoon dafa panne ñu dépêché oto pour mu jël ko yóbbu ko mu ne du wàcc ci oto bi panne nañ ko réparé. ouverture Serigne Babacar si ubbeeku na ci ñëpp ndax yaa ñu jàngal mandu moo tax du àtte kenn ci dimension du àtte kenn ci dimension dina yar ñëpp nag waaye dafa mandu foofu lay joxe oustaz mu jàll ak ñun ci témoignage yi ñu def ci moom. ku amee dimension sociale bu ni tollu Hadj Malick Sy radiallahu taala moom moo wax ni mësuma gis Serigne kër si mu xintewoo lenn lu dul alwaam ak jaamu yàlla jaamu yàlla bi liggéey bi ci lay dugg lu dul loolu yitteelu ko euh, magam di sunu maam Sidi Ahmed si moom itam xam nga moo xamoon ni Serigne kër si mooy nekk xalifa maam Cheikh El Hadj Malick Sy moo tax ba yóbbante ba ñëwee ci moom mu ni dem leen ngeen jox ko baaba kër si ndax moo ko moom kon moom itam teel na xam céeram sunu maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ñeneen ñi bind ci moom kenn xamul nu ñu toll suñu góor gu mag gi sunu maam Seydi Cheikh moom moom moo moo moo raw ñëpp ci euh, domaine boobu. Euh, alaaji Mor Jaxate bind nañ ci moom qasida laka ya aba bakarin fadailun yaqsuru an wasfiha dihnu alladi yatafakkaru qasida bu yéeme ndax la mu jàppoon mu ñëwee jàkkaarloog sunu maam Serigne Babacar xam na ni kii moo ko ëpp lépp. mu def témoignage bu ni toll euh, góor gi Cheikh Moussa Ka def na xasida bu yéeme itam ci sunu maam Serigne kër si te mu ko defee ci làmmiñu Cheikh sunu maam Cheikh Anta Gaawaan moo ko sant ni ko bindal ma xasida ci Serigne kër Sy mu def ci xasida bi dañuy bañ a gën a guddal moo tax jarul ñu koy liir waaye ay mbokki boppam itam sunu maam Cheikh Alhaaji Mansour def na ci moom xasida ci bés boobu nga xamante ni Serigne kër si ngir juróom ya mu daan wax ñett yii ku duut baaraam diine ji ma duut la baaraam ku duut baaraam tariqa bi ma duut la baaraam ku duut baaraam njabootu Cheikh Alhaji Malick si ma duut la baaraam moo tax ba mbokk ma ñëwee di jiite si mu utiliser pouvoir charismatique am boobu ba maam Cheikh Alhaji Mansour bind ci moom xasida نوام شان الحاج عبد العزيز دباخ قصيدة بوبولة خليفة الشيخ والمختار يا في ديمبر يا في فجل دين أيدانم تنجب لوار كونغ جيسني موم فتبارك الله واي لي تيغنا نيخ نيب كوي واي سيرين غاي واخ bàyyi baayaatukum sayida saadaati bayata man qad baaya al Mustafa lillahi taxta shajar sunu maam Serigne Babacar Sy nag ci vie spirituelle am da nga ñu jàngal sàng bi ci colisée bi ni ñu spiritualité expérience la kon diirant dundinam yëpp moo tax mu sañ taxaw wax ni mësuma fàttaliku fu mu mooyee son borom loolu moom dong moo ko sañ a wax kon kooku digganteem ak boromam fa tabaarakallaahu lu rattax la woon. ci spirituel boobu. sa turandoo moo ñu jàngal ni mag daf ko xool ni hazihi sakina dal bi dal bi ñu ne ko yeta addabu ma al xaq dafay bàyyi xel ki ko teg bët bi ci des sa turandoo nee na fu mu daan bindee lettre min di rabbihi rek la ciy bind lettre bi jaamu boroomam moo ko yónnee fu mu amee bagage bu muy bind turam li di rabbihi rek la ciy def lii de jaamu boroomam rek ko ko moom pour bàyyi xel boroomam ci la ñuy jàllee dem ci ses relation kuy nit kuy nit kuy doomu aadama Serigne Babacar si amoon na ak yow relation rawatina famille religieuse ñoom amoon na ak ñoom relation góor gi Abbas Sall amoon na ak ñoom relation ñoom sëriñ Muniru Sarr amoon na ak ñoom relation muy euh, doomu Seydil Hadji Malick Sarr donc mak ni nekkoon ci wàllu diine ñëpp ñoom Serigne Alioune Guèye ñoom ñëpp amoon na ak ay relation bi ñu des yi muy les colonisateurs niko ko Maodo defee woon bi mu ñëwee donn dafa continuer lool te mooy dafa am ak ñoom relation moom ngay gis ni ñu jox euh, décoration bi ñu koy jox foofu donc képp kuy nit moo xam sur le plan religieux la sur le plan politique la sëriñ Babacar si amoon na ak yow relation boo xam ni fa nga jaaree naw ko ba faw jaar fa respecté ko ba faw bi ci des ñu ñëw ci sa famille parce que famille yàlla la koy tànnal famille am moo nekk nii ñu mën ci tudd Seydi Ahmed si mën ci tudd Serigne Mansour si bu suñu maam Serigne Babacar si Seydil Hadj bu suñu maam Serigne Seydil Hadj Malick si mën ci tudd Seydi Habib si mën ci tudd maam Abdou Aziz baax ñëw fii ñi mu bokkal wayjur bu góor ak way bu jigéen Seydi Hadj malik si mi ngi taawloo soxna Fat si euh, Seydi Ahmed si topp ci maam Babacar soxna Assou Sy ak soxna Khady si fii ñu am fii ay njabootu boppam ndax yàlla dénku na ko doom yu góor ak njaboot yu jigéen ñu mën ci tudd sa turandoo mooy doom bi ko doon maam Cheikh Ahmed Tidiane si ñu mën ci tudd Serigne Mansour si ci soxna yi fii ñu am soxna photo euh, photo soxna Assou Seck soxnaam la woon waaye comme temps bi daf ñu njat ñu mën ci indi aussi comme soxnaam soxna Astu Kan ak soxna Umu Xayri Sàll ñooñu ci famille góor gi lañ bokk muy suñu mam serigne babakar ah waaw ya comme ya ñu jangal mi ñu dee ni ñu ko jappé comme jéxitalu dundu du nonu amna ñu nga xamantani mom dañ leen di affecter fenen rek dañuy jéxal fi waye téwul ñu ngi fi ak ñun ba légui motax barakallahu baarakallaahu gi nga xamantani mom lañ ci wajal waye nak gor gogu bu làqoo itam amna kum fi bàyyi won moko donu ta moy sa sunu mam jaddunal maktum as sayyid cheikh ahmed tijani ndax moom moo wax ni am na lu nga xamante ni du dog ndono nga xamante ni fii ba àdduna di tukki ci loxol ñi mu war a tegu dana tegu ci ñoom moo tax sunu maam Sayid Cheikh moom moo tax ba yëgeeful demuk sunu maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu xasida yi ci mag ñi way bari na di témoigner ngir bis boobu dal gi mu ci àndaloon fa tabaarakallaahu ak mët gi mu ak mët gi mu ko mët fa tabaarakallaahu waaye nag ñu wax doomam bi ko doon muy Seydina Cheikh Ahmed tiijan si sa turandoo ci demam sa turandoo moo ñu ko jàngal moo wax ni moo wax ne ñëpp wax alhamdulillah ndax ci li ñu jot a xam nit li mu liggéey lu mu am am solo tant que dugagul bàmmeel mën na yàqu waaye bi mu duggee bàmmeel valider li mu liggéey mu ne kon alhamdulillah noonu la ñu ko suñu imaam jàngale alhamdulillah taxaw na seyd na Abu Bakar taxawoon ba góor gi demee sallallahu alayhi wa nekk à l'aise bi ci des wax na ko koo xam ni dañ koo denc nga ñëw fekk ko ci saalam mu toog demul fenn maktum moomu ko donn nag wax nga ñu fii 15 mars ne ko doon a ngi fii donn ko daf kaa doon mi ngi fii ci biir kër kooku ko doon muy sa góor gi Cheikh Sayid Mouhamadinil mustafa Sy kenn mënu ci wax lu ëpp liñ ci wax kenn mënu ko ndax Maodo ku nekk wax na waaye bi sëriñ Babacar si egse la ñëpp xam ni li ñu bëggoon wax yépp waxal na leen ko sëriñ Babacar si ku nekk wax na waaye bi sëriñ Cheikh egse lañu xam ni kii rekk moo xam waa ji sëriñ Cheikh ku nekk wax na waaye bi góor gi egse la xam dëgg-dëgg kan mooy al almaktum waaye góor gi itam ku nekk wax na waaye bi nga egse gu góor gi moom li nga ñu jàngal ci moom rek nee nga bu fekkente ni bi sunu maam Serigne Cheikh moo euh, sunu maam Serigne Babacar Sy moo interprété philosophie maam Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu moom góor gi Serigne Cheikh moom moo def synthèse bi waaye sunu góor gii ak Cheikh Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy Al moom moo def étude supérieure bi moo tax fa tabaarakallaahu am na lu nga xamante ni du fii dañuy ñaan rek li ñuy wax rek li nga ko yéene moo ëpp ñun ñëpp suñu yéene laxas nañu ko boole ko ci sa yéene yal na yàlla mottali li nga ko yéene yépp fa tabaarakallaahu lii nag len lennat la rek ci ay témoignage yu nga xamante ni fa tabaarakallaahu ay turandoom xar mii li muy représenté mooy sunu maam Serigne Babacar Sy bu tabaski daan ñëw. góor gi alaaji Cissé bu Thiès ak daayiraam ñoo ko daan indil xar da ko daan solal yére comme ni ñuy sole leen nit yére tabaarakallaahu indi ko dugal ko train wàcc ko gaaru Tiwaawan ñu jiital xar mi di sikkar ba ca ëttu sunu maam Serigne Babacar radiyallaahu taala moom lañu wane nii ci image bi ak yeneen i témoignage ah yii nag yenn la rek ci moo ko daan sol lii mooy bone kaarem ba nga xamantani mom moom la fasalonte won kóllëre ba ni won dotul sax saña sol benen benen baxana gudul bonekare. bonekaare waye li itam moy tapi bi mu daan lal ci kaw deram ndax sunu maam Serigne babakar si der la daan jullee bu daan julli tapi bi la daan jël lal ko ci kaw fa tabaarakallaahu kon nak ñi ngi jéggalu ci guddel bi li ci bax sax serigne bi ñu koy jéggalu ci présentation bi li ci bax ñu koy nga bañu baax ci temps bi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci occasion bi arab nee na al fursatu laa taati marratayni occasion boo ko amee da koy saisir bis bu tedd bi ci béréb bu tedd bi ak ku tedd ki ci kaw ak ku tedd ki mu yebal nu it noo ngi koy ñaan moom maam Cheikh capitaine mu ñaanal nu door a def lu muy def loolu daal noonu koy ñaan lu mu wax rek nu def xanaa kon ñu ñaanalante bopp mu ne xanaa kon nu ñaanalante bopp ñu def fatiha nee na nu bokk def fatiha ñetti quraish ak ñetti li ilaafi quraish ak juróom ñaari lixlaas ak juróom-ñaari qul huwa ahad ah, teg ci falaxi ak naas ak salaatul faatih ñu teg ci falaxi ak naasi ak salaatul faatih ah, du ko ñaan ci barke borom bés bi nee na moom nag du ko ñaan ci barke borom bés bi dama koy ñaan ci barke ki toog fii ci biir daf koy ñaan ci barke ki toog fii ci biir ndax mag ñi nee na ndax mag ñi lu ñu leen xam-xam. lu ñu leen xam-xam. lu ñu leen miin miin. lu ñu leen miin miin. lu ñuy doon doon suñuy maam ñun Moustarchidine. li ñuy doon doon suñuy maam ñun bu budul moom. bu budul ak mu Moustapha kii ci kaw. xamuñu leen. xamuñu leen. xamuñu kon nag. mu ne kon nag. ñu ñaanalante. nu ñaanalante. ci barke moom. ci barke moom ku tedd ki. ndax suñuy xol moom la xam. ndax suñuy xol moom la xam. waaw bismillah. bismillah. dool leen ci soxla yépp amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan yàlla sàmm leen sàmm bismillah day nga nu sëriñoo day nga nu anta ma'mulu wa makmulu day nga